Bienvenue sur Salam Vision. ko xamee toog a rafet nekk ci suñu xew wala nga nekk aada leen ndax nga ne aada leen ci suñu xew waaye nag ñu ñëw ci suñu xew programme de famille de mu ne la nekk jour bu rëy waaye la jour spécial dogal la bu neex suñu borom alhamdulilahi bu ñu santalee toog noo sant nga di toog foo toobee toog di benn toog toog di askan demal exiger xalaat monsieur Alassane Diop le président de Top Family International waxul la ñeneen lañ ko dajale bis bi ne ko ay ndaw ma wax nee na ma sama waa ji ma jaay te si leen gën a jaay monsieur Mamadou Ndaw inspecteur des domaines à la retraite mooy baaxee bi la mère de Fatou waa Adja ma yëngu na jéem xal ma na la gaay pour gàddaay la batante mooy maheen ba sama yaay ji nga xamante ni yëf bi ñëwee jaay la ñu dafa ko ci ñu xew foofu daal képp koo xam ne toog nga sant leen ñu ngi lay ci bis boobu noonu waa Patte Ndoie bëri leen waa Sénégal bëri leen waa international bëri leen ndax man yéen bi bëri naa bu yàgg kon daal waay noonu le vingt-quatre cinq décembre bismillahi musitooɓe fouta basi basar yalnor ak kaño dug dug dug yorgi sénégal bi nuyu naa leen dalal leen ak jàmm ci groupe toog whatsapp tey mu saf saf ñu di ñooy toog di toogee si sa laaj ma sama xalaat dina ma ne toog toog am jëriñ ca mbag toog jaay leen jaay di alal bu ñaay seen lu guddi seen lu seppe toog te war a xool jënd ñetti soxna yi ñoom ñu toobee kulu yaaja yaaja sere yaaja Muhammadu Fatimata Salal yaayam Aboubacar ibn Umar di baayam ñu deneen ko si nit Fatimata Salal lam door ak alal Salal ca gede mooy baayam ku ma wet di laa jël may sa wàllu jot ci biir seen ak wala nga dugg barak ci ëtt Amar Fatim Boros toobeen réer mu waaye nag li ci la yàq ba ci président organisation de la famille internationale monsieur Ibrahima Topp xam ne bëggul dara ñaaw ndax tey organisé nee na daaw jolof la woon waaye émission 2022 bii fii lay amee Dakar kon na ñëpp bàyyi ndax monsieur Ibrahima Top initiateur de Top Family International pare na waaye Mame Mariama Top secrétaire général pare na kon na ñëpp bàyyi Top ku sa baay Top ku sa yaay Top ku sa maam ju Top képp ku sa maam Top ndaw fajo kobor dërga cooga Sénégal am bénéficiaire ndax dara yi saree ñu am mbàkk mbàkk yi ñu ñuy xool ñoom ñi ñooy suñu kalal. kon nag ñëpp baaxee waa Côte waa waa Sénégal baaxee waa Italie Espagne France waa Yowu Kenn waa Jolof waa Kaolack waa Sénégal mbokk ah mën nga ko ci Gambia suñu sëriñ bu ñaaw bokk nga xam ne mooy suñu président d'honneur di suñu ostaas mooy kan Abdoulaye Diop ak professeur Ban Ndaw ca France wala président Alassane Top ca France Mame Mariama Top ci Koungheul di secrétaire bi jaarama aji Awa Baga Top jigéen ñu ñaawul jooju Mata Top mooy chargé de communication kacci gàllama Ibrahima Top bi caayeen Fouta nekk fële ci Congo moom sos groupe WhatsApp bii fekk ko ak Abdoulaye Top ca Paté ak Ismaïla Top ca Four bokk ak yàlla yàlla nee ku toog bokk ma toog kon ba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 bismillahi irrahmani irahim sadaqa allahu mawlana alazim wa ballaqa rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa rasiquna wa mawlana min alshahidin allahumma rabbana taqabbal minna xatma alquran allahumma rabbana taqabbal minna xatma alquran وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تقيير عرف أو تقديم أو تعقيل أو زيادة أو نقصان أو تعبيل على غير ما أنزلته أو ريب أو سكن أو تهجيل عند تلاوته أو تهجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو سيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدقام بغير مدخم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همسة أو جسم أو إهرام بغير مكان فاكتوه منا على التمام والكمال والمعظم من كل ألهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تعقصنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرب معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والشهادة والبسارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا أن من القفلة والكسلان أمنا من آثاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أكل ديدان أمنا يا رب من آثاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبير وجوهنا يوم البعث واتر رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ضيان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والصبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والإهلان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 وبكل سمن سناء اللهم ارسلنا بالالف الفا وبالباء بركة وبتاء توبة وبساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبقاء قلانا وبالدال دنوا وبسال سكاء وبالراء رحمة وبسياء وبساء سلفا وبسين سناء وبشين شفاء وبسار صدقا وبدار دياء وبتاء طهارة وبساء صفراء وبلا عين علما وبقين قناعا وبالفاء فلاحا وبقاب قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبميم موحصا وبالنون نورا وبالواي وصلا وبالهاء هداية وباللام لليف لقاء وبياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام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 وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحصل من قسل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي جلستنا هذه ذنبا إلى غفرته ولا هما إلى فرجته ولا دينا إلى قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ألما إلا كفرته ولا كربا إلا فرجته ولا هيبا إلا سترته ولا مصيبة إلا كفيته ولا حاجة لنا من هوائي الدنيا وأنت ردا بها إلى قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا سالم كل مصنوع ويا جابر كل مكسور ويا هادر كل ملئ ويا ساعد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا قالبا خير مخلوق ويا حيا لا يموت ويا مهي الموتى لا إله إلا أنت يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجهل من أمرنا ومن ضيقنا فرجا ومخرجا وترزقنا من حيث نحتسب من حيث لا نحتسب برمتي اللهم صل وسلم على مرآة ساتك ومشهد شفاعتك سيدنا ومولانا محمد رسول الله الفاتح لما أحلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم صلاة تهب لنا الأمن يوم الدين من النار سات الوقود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 wa bi hormati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun fi dunya wa salaamun fi l-aaxira wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alquran ku ko jàng ku nekk lay foog mu wax ñu lan moo ko ci xiir ba moom mu toll fii mu toll ci alquran ak lan lan lay digal njaboot gi ci seeni doom pour ñu war a dem jàngi alquran loolu lu am solo la bu bu ñu baree ci sali toog moomu ñu waxtaan ci mbokk ak gis-gisu lislaam lan la lislaam wax ci mbokk kuy jox mbokk ak koo xam ne ki dafay xalam mbok maanaam ku yàq mbokk am na gis-gis bu ci islam mbokk kooku la imam Adama Ndao mii moo ko war a def moom lañ tànn pour mu def ko bu ñu duggee ci loolu dañoo waxoon ne dañuy ci programme bi ñu doon laa wax dañuy def pause dañuy dañuy dallu dama waajal dox jox yàlla li moom parce que lii moom ñun ñun ñoo ko moom. mais yàlla subhaanahu wa taala moom lu moom bu ñu àggee ca waxtoom ba dañ ko koy jox ba pare soo ko del si ñun ci lañ moom dëgg defe naa ñëpp d'accord nañ ak man ci loolu euh, bu ñu paree nag loolu xam sa cosaan xam sa cosaan nag parce que nu toobeen fan la commencé fan la yem fan la jaar am na ñu ko mën a wax ñu ngi fi waaw parce Malick Top bu Sadio ngi fi ak ñeneen nga xam ne daañu ko tànn daan nañu leen tànn ñu wax ñu wax ñu ñun askan toobeen ak maam yi bu ñu dañoo ñu dañoo réer ku mel ni man bëgg nañ ko ñu wax fu ñu jëm loolu dafa am solo bu loolu weesoo nag bés yi tey bi moom fa lay fa koy takkalee parce que voyage bi dafa bëri ñu jóge nañ Fuuta ñi Koungheul ñi Nioro ñi Gambie te dañoo sonn te dàll bi euh, noppalu ba ca des na parce que coono gee tax coono yoon su ko defee ñu noppalu nag ba suba ñu tàmbali waat beneen journée muy activité bu subaa nag ñu wax bu suba asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa di sant yàlla bu wér di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm samay ñaari waajur di sant bu baax sama borom kër ndax ginnaaw yàlla moom la ma yàlla boole te xay na lépp lu ma mën ak fu ma yegg si tey ginnaaw yàlla moom la di sant yàlla bu baax nag ñaari ànduñu ah, di sant bu baax di gërëm famille Tobin international waa di sant ñëwul waaw baax na di sant bu baax waa famille Tobène international di jiital waaye bàyyi leen ma ma wax nii rek waa di gërëm waa di jiital ci nuyoo bi nag euh, président Alassane Top suñu président groupe di nuyu suñu président d'honneur papa Ablaye Top ci Tandier maam Mariama Top la secrétaire moom laay wax laa douce di nuyu ñëpp nag ma kenn sama waa coordination maa ngi leen di nuyu di nuyu Ibrahima Top président comité d'organisation bi Ousmane Top sama adjoint maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa groupe bi yëpp ndax su ma limee damay juum tuuti rek laay wax ndax mënumaa ñàkk wax ma wax sax ci mbooloo waaye Ousmane laay jox mu wax lu mu bëgg a lu ma war a wax yëpp xanaa di nuyu rek ñëpp di sant di gërëm di nuyu waa coordination yi ñëw yëpp ak coordinateur yi région bu nekk fu nga jóge maa ngi lay ñaan ndax lii mbokk ko waral ndax wax dëgg yàlla sama xol dafa sedd ndaxte nit ki dëkk ci bërëb ay ati ati at wax dëgg yàlla peut-être say mbokk dinañ ñëw mais dajaloo bu mel ni rassemblement bi mosuma ko am même ci xew yàlla indi ko tey wax dëgg yàlla loolu dama ci kontaan xaw ma sax lu may wax ndax xëy na su ma continuer wax sax yàq wax bi dina yàqu di gërëm nag sama mag muy ulay topp sama taawu yaay ak waa këram samay dëkkandoo tamit. di nuyu mbooloo mi fi teew sunu papa yi fi nekk ak sunu najaay ak sunu bàjjan ak sunu yumpaañ ak sunu rakk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ñëw ngeen ci jàmm yalla ngeen ñibbaat ci jàmm waaw képp ku fi ñëw rek yal sa aaju faju waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Mamadou Ndaw mi nga xam ne. mooy jëkkati xadi top nekk impôt demen waaw parce que mamadu Ndaw mii papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay papam lañ ma tuddee mu nekk nit koo xam ne ku baax la ko am diine ko am ngor vraiment sagal na xadi parce que lii moo ci jàpp waaw Mamadou Ndaw lii moo ci jàpp kon nag xadi mi ngi gërëm euh, Mamadou Ndaw mii nga xam ne moo jàpp ci lii parce que lii yombul kon Mama Ndaw yal na yàlla guddal soo foon nga dund téeméer ak juróom fukk nga foq ñaari bëñ ci kanam yàlla mën na yal na ko yàlla def mbooleem jullit képp ku fi ñëw rek yal nga dund téeméer ak juróom fukk vraiment kontaan nañ parce que amul lu dul toobeen waaw man de loolu rek laay gis toobeen rek laay gis bi 90 bi mu fi ñëwee ba ma gisee ko santa toob jaral na ma lu ne fépp fa toobeen toobeen xew la rek jaral na ma lu ne kon nañu gën a góorgóorlu ci famille bi xam ne amul lu dul toobeen amul lu dul askanam waaw mag ñi dem nañ am ne mag ñi fi des ñi fi des yàlla nañ fi yàgg te wér ñu dund téeméer ak juróom fukk yàlla bu ñuy dem di daje beneen xew ñu am ay 4 4 ay 8 8 ay 20 vin yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla boole defal ca barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ñëpp am jàmm ka fay amoon feebar yan na ko yàlla faj ci daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam addi toom mi moom it macha allah parce que depuis 90 laa ko xam mais musul change man li ma xamoon ci moom rek laa xam mu ngi dëkkoon boor kan ñoom màng dama fa daa dem mais xadi musul change ni meloon la masa mel moom it aaw ba baax la mën na aaw mën na ñaareel mën na ñetteel mën na ñeenteel yal na yàlla lafal ko cat yàlla bàyyi ko bërëm këram téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent vraiment kontaan naa parce que man dama xam lu bëri ci biir yaay càmbaam yaay lu jafe la nga dëkk sa goro bu mu xëy génn àddina ba sa bërëm kër gërëm la yombut yaay càmbaa daam na daawul lekk ganaar mais xadi toog da koy seere waaw kon nag euh, yàlla na ko yàlla fayal vraiment kontaan nañ daal de lépp lu mën a waxandoor euh, kontaan nañ daal ci tour bi euh, yal nañ ko yàgg a def euh, yal nañ dem ba suñu sët sët sëtaan donnuñu waaw yal nañ yàlla defal ñu jàmm yàlla indi ci réew mi jàmm indi fi naataange ci musiba ak balaay musul nañ ci borom ñaari tur yi ca barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw wasalaam jërë ngeen jëf bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi bokki Top Family International ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ñaan yal yàlla def jàmm ñi ngi siyaare kilifa yi fi nekk yëpp imaam yi ak chef de village yi ak mbooleem ku fi nekk rek sant Top ñu ngi koy nuyu di ko siyaare euh, xam naa dañuy comme ni Sëñ Ibrahima wax man lay Top laa tudd dëkk Fuuta Euh, dañuy wax ci turu Sëñ Alassane Top mu nekk président euh, dañuy wax ci turam rek pour mu mën a gàtt ñu ñàkk jël temps bi waaye ñi ngi siyaari ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp njéggulu aussi euh, comme ni ko sëñ Ibrahima wax mu nekk rôle bu nga xam ne rôle bu métti la rôle bu jafeele la it waaye ñuy ñaan yàlla na ko yàlla jàppal yàlla bu la jàppalee rek looy yenu dana dana woyof kon duut ci gën a wóor nit ñi duut ci gën a jub nit ñi xëy na nattu bu yàlla la rek dañ koy gëmee yàlla aussi euh, ñi ngi euh, nuyu ñëpp di siyaari ñëpp alsanto bi mi ngi nuyu mboolem ka xam ne ma ngi fi nekk ma ngi koy siyaari di ko nuyu ak mboolem ku nekk ci bureau bi ñoom Najaay Ibrahima Toob euh, ak mboolem ka nga xam ne daal mu ngi ci bureau bi ñoom Xadi Xadi moom bu ñu bëggee wax waxam fii xëy na bés bi day jeex parce que ñoo bokk nekk ci bureau bi gis nañ même bu nekkul tuur bi tuur ba nga xam ne ayee nañ ko xadi day dindi xaalisam mu ne dimbalee ko leen muy fuuta muy war xoox lay dindi xaalisam te bokkutug li muy cotiser fay dindi cinquante mille mu ne am lee lii maa ko participer te bokkut loolu ci cotisation yi muy def kon loolu ñu ngi ñaan yal na yàlla bari ñu mel ni moom parce que mi ngi ñaw mbokk gi mi ngi dimbalee mbokk gi kon ñuy ñaan yal na yàlla baril ñu mel ni moom ñu gën a góor góorlu gën a jàppante nga xam ne amuñ dara la su duut toobeen la ñu am kon ñi ngi sant ñëpp di sant ñi nekk ci bureau bi Sëñ Alsaan mu ne ma ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di wax ne yéen ñëpp mag leen di ñaanal parce que yen bi ngeen ko yen euh, xëy na mëneen ngeen ko jox keneen mais da ngeen ko wóolu dénk ko ko kon mag leen di ñaanal yal na leen yàlla fay ak mbokk léegi nag ñu gàttal foofu rek ñu ngi leen di siyaare bu baax xam naa bu ñu demee ba ci kanam ñu ngi ànd ak délégation bi fi nekk xëy na saya maam Jaama ma ngi fi Aysata soxna si euh, euh, sëñ Alsaan mi ngi fii Alsaan nag sama jaam la man du sama najaay jaam sama jaam la nag man maa koy jox <laughs> sama doomi bàjjan la si euh, jabaru sëñ Ibrahima Toop kii créé groupe bi mi ngi fii seen si jataay bi dañ koy sant bu baax parce que lii yomb moom moo ko waral ak yaayam mi ngi fii ñoom maam booy suñ jaam bi mi ngi fii fi euh, saynu bu kobar kon ba mu délégation ba mu waxee rek xëy na dana am ña ma fàtt nu ñu bay ba toll fa rek dana am ko ñëw waxal leen ci seen tur waaye ñu xam ne suñ Ibrahima it mi ngi Congo waaye mi ngi ñuy déglu ñu ngi koy ñaanal bu baax parce que lii yëpp moom moo ko waral jaarale ko ci moom mu créé groupe bi ba tey ñëpp a jësante xamante tey foo dugg ci dëkk yi dootu dootu maranki ku nekk am na koo fu xam foo demee doo jaaxle kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. xam naa ni wax ji mi ngi bëgg a bari euh, ñi ngi siyaare siñ ndaw mi parce que boo gisee xadi toob mu man li man siñ ndaw moom moo tax mu man ko kon ñu ngi koy ñaan yal na yàlla guddal fanam. ko wax Ah, mbokk yi comme ni ko waxoon euh, sànq suñu invité de la spécial moo nekk nii nekk maanaam Aminata Sow dëkk ci cité bi di mu def lu baax kooku wax tey waxoon naa leen ne man du ma waxul kenn du ma waxal kenn lu ma xamul ci moom te yàlla rek tax nag may wax dafa dafa dafa nekk dëkk bii dina def lu baax à travers Sénégal ndax li ñu ko dénk moo tax elle est nationale elle n'est pas départementale elle national kon ku mel noonu bu toog dëkkee ci ñun fii ci ci gox bi bu ñëwee dañ ko war a jox wàccuwaayam ak yéeguwaayam ko sargal maanaam ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant lu baax rek moom ku koy def ku nekk foog nit ñi di la roy mais lu bon lañ lu bon lañ dul wax mais yow de fii man nga fee daagu quartier bi nga nekk man xaw ma la bu woon bu yàgg boo ma ñëwee sa kër laa lay soog a xam defe naa ne bu toll ci weer wala 15 jours ci la yem ma ànd ak ngooma ngooma ak xadiso ñoo seet si la te yagaluñ la ko dañoo ñëw rek fëgg sa bunt nga ubbil ñu ñu ne ñun de dañ laa bëggoon a def suñu invité d'honneur spécial ndax li ñu dégg ci yow nga ouverte trop yaatu lool recevoir ñu fekk nga doon def sax laazim mu julli timis ni bay def laazim wala xaw ma tàkkusaan mais dafa terewul ba mu laazim mais ba pare dafa ñëw toog ak ñun sargal ñu tatagal ñu ba pare nañu dinaa fa teew donte sama calendrier dafa xat fi mu nekk nii am na ñu koy xaar feneen waaye li li muy xat-xat na foog mu teew fii kon ñoo ngi lay gërëm ci turu top famille international yëpp kii mooy parrain bi di monsieur Mamadou Ndaw nekk borom këru sa xarit Khady Sow ak Ngoma donc euh, li ñuy def rek mooy jébbal ko moom ci boppam kàddu gi mu ñëw mboq yi xam ne dama la bokkoon par madame euh, Aminata que délégué yi nekk ci senegal yëpp a ngi fi teew Kaolack Kaffrine Koungheul ñooro war ko fële ca Jolof ak Fuuta ba nga xam ne xam naa ne ba nga cosaanoo kenn desul kon ñun nous sommes international ak diaspora bi yëpp ñu ngi fi kon mbokk yaa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu du ma téye kàddu gi lu yàgg dañ lay bàyyi rek nga sànnante ak ñoom kàddu ah ñu yeewi la nga dem nekk ci li nga nekk parce que sa sa jot bëriwul mag ñaa ngi nii ci seen ginnaaw magu askan toobee na ngi nii kii nga gis mooy suñu président d'honneur Abdoulaye Top jógee vacances bi si ci sa ginnaaw gàmm yàlla ñoo sa ñoo la ñoo la ak ñi ma àndal ñi mooy faatu ngoom ak Ngaru ngoom li ma fi ñëw nag ci mbette bu rëy laa fi ñëwee lu tax ma ne mbette bu rëy laa fi ñëwee parce que dama bëgg kuy jokk mbokk parce que yàlla bi mu waxee topp leen yàlla daf di teg ngeen jokk mbokk te ngeen daf lii si jamono boo xam ne yombul nit ñi yitte xat-xat jamono yu bëri na ku nekk yaa ngi daw nit ñi mun nañ nit ñi mun nañ bokk ndey ak baay sax ñu toog lu yàgg duñu duñu gisee surtout ak téléphone yeeg internet yeeg whatsapp yi mun nga toog doo xam sax ni gëj nga gis sa mbokk donc li ngeen organiser li lu am solo la lu am solo jokkalante ba parce que mbokk mooy lépp mbokk mooy lépp bala ngay dem di jàppi jàmbur jàppal ki nga bokkal deret te soo leen jàppalantee nii dina tax seen njaboot xam ñan ñooy seen mbokk seen njaboot yi tamit damalante si seen biir di nga gis ñoo xam ne ñoo bokk benn maam di rombante ñu xam ne ñoo bokk benn maam parce que maam yi walla yaay yi papa yi ànduñu woon donc yéen ni ngeen def ni c'est su que seen njaboot ñu réer donc vraiment bëgguma guddal euh, wax bi mais dama leen di wax rek mbett bi ma si am ak ñaan yàlla li ngeen sumbali yàlla na jëm kanam yàlla na dëgër seen njaboot yëpp yàlla na yàlla nañu topp si seen tànk yi parce que lii lu am solo la même américains yi xam nañ ko George Bush bi mu nekkee président mu dem ba ba ba ñeneen ñi nekk président mbokkam yee ko njëkk a jàppale donc américains yi xam nañu ni que bala ngay dem fenn say mbokk ñoo la war a njëkk a jàppale président Macky Sall tam bu teelee falu mbokkam yee ko njëkk a jàppale mbokkam xalpulaar yi mbokkam séeréer yi parce que dafa judd nekk xalpulaar waaye séeréer dañ naan Macky séeréer la ndax ni mu juddoo ci seen biir màggee ci seen biir lu ñuy wax ne da ko bandum xalpulaar di ko wax dañ koy wax ci làng pulaar rek waaye loolu moo valable ci làkk yëpp ci ethnie yëpp loolu moo valable nit ku jógee te mbokk mi njëkk ñu jóg nañu xam ni kooku baaxul li maam Abdou doon wax mu ne ku yë ku ku bu ñu waxee nit baax na nit baax na nañu laaj ndax mbokk yee ko wax bala ngay baax si jàmbur baaxal si sa mbokk mm. bala ngay dem di seeti jàmbur di euh, xaritoog moom la ak sa mbokk mm. donc li ngeen def li yéen lu am solo la loo xam ni man naw naa leen si bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla na law donc kàddu yi ma bañ ko guddal di yem foofu di remercier Khady Khady Top bu baax a baax parce que moom tam nit ku baax la yéen xëy na xamuma leen waaye moom moo fi nekk koo xam ni fréquenté naa ko mu xaritoo ngoma mi bu ma xamante xaritoo yàlla ngoma mi faatu ngom moom tamit mu nekk nit ku baax moom ay rakkam ñu may jàppale bu baax ci politique bi ma xamante keroog ak boroom kër xadi xadi topp mooy monsieur ndaw mi moom tamit même chose macha allah te àdduna bi baax rekk am solo donc ay nit yu baax bu ñu gisante nañ nañ jàppante bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla na yàlla dugal loxoom si li ngeen sumbali yàlla nañu yàlla jàppale accompagner accompagner ñu maa ngi tamit si nit ñi exemple bi nga xamante ne tey ji jàngat nga ci lu bari ba tax tey nga déplacé wu tey ñëw fi tey ban yëgee nga ci am euh, mbette bu rëy laa si am ndax lu jëm si bokk la parce que ñëw nañu euh, xadi topp ànd ko ak euh, monsieur topp bi ñu ñëw kër ga ñu ne ma def chaque année dañu organiser wu la famille topp dañu organiser képp ku sant topp foo munti nekk nga nekk biir Sénégal wala nga nekk bitim réew dañu def dañuy def benn tour boo xam ne at bu ne dañuy dajaloo léegi bi yoon xadi topp moom moo aye ma rafetlu ko lool parce que loolu yombul si jamono bi ñu am bi te ñëpp xam nañ ni que nit mbokkam balaa keneen te yàlla bi mu waxee ni que toppaleel ma dafa ne ngeen jokk mbokk loolu la si njëkk teg balaa leneen donc mooy ni ko jokk mbokk farata la te yéen ngeen nekk ci farata boobu donc moo tax ma am si mbette bu rëy parce que lii dafay tax ngeen xamante seen biir waaye dafay tax bu seen njaboot ñëwee ak seen sët ñu bañ a réeroo ndax gis nañ jamono bi ay nit dañuy bokk benn maam fekk xamante wuñ loolu dafa bëri lu tax xamante wuñu c'est parce que gisuñu seen waajur yi di ànd seen waajur ñu doon ànd ñoom ñu juddoo seen kanam waajur yi ñoom forcément dañuy xamante loolu moo loo xam dafa tumuranke si jamono bi ñu nekk bi yéen nag li ngeen di def li dina leen mësal si loolu loolu lii loo xam ne ñu bëri dañ ko war a rey fa famille yëpp dañ ko war a roy ndax lii dal njaboot bi léegi mu bañ leen si dal ndax mu nekk jaamu yàlla ba pare mu nekk loo xam ne day tax euh, njaboot bi gën a dëgër famille bi gën a dëgër waaw macha allah yéen ko dégg kàddu yi nga xamante ne rafet na à part euh, li jëm ci wàllu mbokki gi ba léegi tamit ñu ngi ci biir mbokk gi mooy ci biir Sénégal nga yëngatu ci li nga xam ne moo di wàllum politique yàlla suñu borom dogal la ci tey nga am ci ay ndomba tànk yoo xam ne yaa ngi ci kawam tey jii maanaam saa boo toogatee rek euh, say askan ak say dëkkandoo ak waa Sénégal di la seetaan ba ñu yëg ngay am ci peuple Sénégal waaw ban yëg-yëg laa ci am sant yàlla sant yàlla parce que aussi lu ñuy wax nekk ci biir ay nit jëriñ leen moo ëpp solo te jëriñ bu leen di jëriñ bi tamit ñu santee ko président de la république Macky Sall parce que moom moo ñu jox ndombal tànk boo xam ni dañu féete foo xam ni dinañ jottali ndimbal moom yi mu fas yéene jox askan bi donc ñu sante si yàlla baax parce que dim dimbali say euh, sa askan surtout ñi nga xam ne seen loxo jotewul gannaaw dafa nekk loo xam ne président Macky daf ko bugg si xolom moo tax depuis yokk koom-koom bi bi mu defee projet yoonu yokkute depuis foofu la waxoon ni que nañu xeex ndóol mooy mettre fin au inégalités sociales bi mu jëlee réew mi tamit mu mu mu kii ko mu matérialiser ko teg délégation général à la protection sociale à la solidarité nationale mu am ñu mu ko dénkoon ñuy ministre Mansour Faye Anta Sarr topp si yàlla daf 2019 mu jox ma ko ñu siy liggéey nag di si was lu àq di si def lu ñu mun di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla motte waaye képp koo xam ne ku nekk Sénégal ngay doomu Sénégal foo mun munti nekk xamal ni président de la République Macky Sall am na yéene jàppale la am na yéene ñu jàppale la moom moo tax ñu def bourse de sécurité familiale boo xam ni ñun ñoo ko yore tey di sant yàlla baax di sant yàlla di sant président Macky Sall parce que lu ñu dafa fekk mu nekk loo xam ne lu ñuy dund si suñu deret la lu ñu bugg suñu xol mooy jàppale askan bi yàlla teg ñu fa tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ fi liggéey bu liggéey boo xam ne lu am solo la loo xam ne duñ ko rëccu sénégalais duñ ko rëccu président Macky Sall bi ñu dénk tamit ndombal tànk si am benn rëccu rëccu jërë ngeen jëf maa ngi leen di remercier baax ñaanal leen yàlla yàlla na lii yàgg yàgg jëm si kanam. alhamdulilah yéen a ko dégg liggéey baa ngi noonu yéen a ko gis. mu ne ñu jàng Fatiha ayatul kursi ak naas bisimilah. Uh, asalaamaaleykum uh, askanu Tobène famille bi maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam. loolu temps na loolu euh, nga am ñu dégloo ku ñuy wax mooy kuy wax lii mooy suñu pare man daaw di ko di ko di toog ñu déglu bu baax mu yëkki tuuti ay kàddu yu mu dénk famille bi ak njaboot gi xam na ñu ngi dajee këram heure nekk mu yaatal ñu tatagal ñi ci këram kooku mooy man daaw di ko di di toog moom lañ jox kàddu mu yëkkati ay kàddu ñu gàtt ñu baal ngeen baal ñàkk rek jël ko ñun ñëpp ñu teewlu ko wax mooy kan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi jël noyo bi teg ko ci imaam mu séddale ko ci askan bi yëpp askanu Tobène bala may commencé damay nuyu waa cité impôt domaine ba pare di noyu euh, chef de quartier bi. waroon na egg si xam naa dafa am lu ko teq loolu moo tax euh, teewul doon xaar aussi madame le maire moom tim peut-être euh, liggéey bi xaw a sakkan mais war na ñëw dans les normes di nuyu di sargal ministre bi fi jóge léegi euh, ku baax la ku ku ku laabiir la ku oyof la parce que ku la yëg nga yëg ko Euh, ñu ngi ñu ngi koy tadagal di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko sargal di nuyu président président Tobène Family di nuyu soxna yu jekk yi macha allah euh, bu bu ma paree discours nag il faut ngeen wax ma Tobène yi foo ngeen toj <laughs> foo leen toj il faut ngeen wax ma foo leen toj <laughs> parce que ndaw ku ndaay yéen yéen a gën a xam ne ndaw ku ndaay ay buur lañu jigéen ñi ay lingeer lañu ay xam ngeen ko euh, ku ku ku ku ku ko weddi rek euh, euh, na nga dem ci histoire Namandiiru waaw peut-être am nañu ko ñu ko xam Namandiiru am nañu ko xam macha allah macha allah ndaw du daw ndaw ndaw jàmbaar la ñu ngi nooyu Louga délégation yi Basirou Top di nuyu délégation maatam Ablaye jiitu ko trésorier bi ak Seydou ñu ngi leen di ziar di leen tadagal di nuyu délégation Kaffrine Mariama euh, di noyyu bu Dakar Khadija Top soxna si euh, di nuyu Aïssatou Top bu Nioro ak délégation am Gambie euh, Papa Abdoulaye président d'honneur bi ak Ilimane ñu ngi leen di tadagal bu baax a baax euh, di nuyu délégation wu Diourbel Lamine ak gilaado Top diaspora bi Daouda jibi Top représenté leen Thiès Awa Baye Bass Top ñu ngi nuyu ñëpp di leen sargal di leen ziar euh, di leen tadagal di leen jox seen wàccuwaay di leen gërëm aussi ci parrainage bi mu bokk ak ak famille Top yëpp nag parrainage bi man ak famille Top yëpp ko bokk jégaleex ndax euh, ndax xadi alhamdulilahi rabbil alamin euh, soxna la euh, ku yaatu la dund naag sama papa peut-être sept ans mais sama yaay la gën a dundal sama yaay ñaanal na ko sama yaay ñaanal na ko yaay càmba ñaanal na ko macha allah eh, ku mën a soxna la daal xar toob daal soxna la daal ci ci gàttal waaw eh, di nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di kontaan aussi ci parrainage bi dëgg-dëgg c'était pas évident parce que peut-être am na ñeneen ñu fi toog waroon jël loolu mais ngeen xool ba seppali jox ma loolu teraanga la teraanga teraanga koy fay euh, fii ba suba da ngeen bëgg da ngeen naan dangeen lekk bu soobee yàlla euh, di ñaan suñu borom bi euh, seen askan bi lii ngeen li ngeen sumb yàlla na ci yàlla def barke yàlla na ci yàlla def loxoom eh, ba mu dem ba ci seen ay setaati setaati set ba ngeen di fekkee loolu di jore bant di dem ci daja yi incha allah rabbi yàlla na ko buur yàlla def te incha allah dina ko def eh, di kontaan di kontaan lool lool lool lool vraiment wax ci mbooloo eh, aayuma ci mais faw alaa kulli haal ma wax parce que yéen la yéen a ma dooleel yéen a ma jox teraanga bi ma leen di delloo teraanga góor ak jigéen mag ak ndaw tànk yi ngeen ñëwee yàlla na ngeen delloo noonu ni ngeen a ngi ñëw ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla na ngeen dellu ci alhamdulilahi rabil alamin fekk ñëpp ci jàmm ak salaam euh, ci gàttal daal maa ngi sant bu baax Khady Top dëgg-dëgg maa koy sant mat mat na aaw mat na ñaareel mat na ñetteel comme ni ko waxee comme ni ko Ousmane waxee de waaw macha allah macha allah jërë ngeen jëf jërë yàlla fay leen merci merci jërë jëf macha allah. kon kontaan naa kontaan naa kontaan naa kontaan naa trop trop trop di leen ziar di leen sant alhamdulilah rabil alamin jërë ngeen jëf ci parrainage bi merci. mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah summa salaatu wasalaamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin sayyidina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladi arsalahu ila nasi kaafatan wallahu yaqulu fi quran wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal axir إخوة الإيمان أصحاب السعادة حضرات أشراف آباؤنا وأمهاتنا ضيوفنا الكرام نحييكم بتحية الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi fi teew ñi ngi doore suñu kàddu ci turi buur bi subhanahu wa taala di làkku ci moom di muslu di ko ñaan mu musal ñu ci iblis mi nga xam ne moom mooy yàqkatu jëf yi comme ni ñu ko suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale di ñaan borom bi subhanahu wa mu boole ñu ci jaamam yi nga xam ne iblis du leen mënal dara suñu giiru dund ndax xam ngeen ne iblis mooy yàqkatu jëf yi te leer nañu ne ëllëg yowmal xiyaam képp ki nga xam ne mi ngi ci safaan la waral mu àgg ci safaan iblis dafa participer ci dundam maanaam ci ay jëfam kon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu tënkal ñu seytaan ba nga xam ne lépp lu ñu war a def ngir jaamu yàlla moom du ci mën dara waaye nag lu naan ndimbal dafay fekk loxoy borom il faut ñu def effort ba nga xam ne lépp li ñu borom bi subhanahu wa taala sant ñu def ko ci suñuy ibaadaat waaye lépp li nga xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ñu ko tere ñu sori ko loolu mooy tax ëllëg yowmal xiyaam du ñu bokk ci ñi nga xam ne iblis dafa participer seen dund gannaaw loolu mbokk yi ñuy yëkkati suñu kàddu di julli di sëlmal ci sangu-sang yi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal di ñaanal tamit gaa yu baax yu mu àndaloon muy ay saxaabiyaat ak ay saxaaba yu góor ak yu jigéen ay mag ak ay ndaw comme suñu jotaay bii ndax booy xool ay mag a fi ay ndaw a fi góor a fi jigéen a ngi fi ñuy ñaan yàlla yàlla may leen ñoom tamit leer fee ñu nekk ndax benn ñaari kàddu rek a taxoon ñuy sonn ngir kàddu googu féete kaw muy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam a ah, ñuy commencé rekk mbokk yi fi teew suñuy kàddu di sant buur bi subhanahu wa taala sant bi nga xam ne am na tàmbali te amul fu muy yem ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal nit bu yeewoo lu muy njëkk a def mooy na sant borom bi subhanahu wa taala wax alhamdulillahi allazi radda alayya ruuxi wa afani kon ñun ndax yow tëdd nga sa moroom tëdd yàlla may la nga yeew am na ka nga xam ne mi ngi yeewoo àllaaxira kon lu ñuy njëkk a def maa wala maanaam lu ñuy njëkk a génne suñu baat moo ñu sant buur bi subhanahu wa taala ah di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp waaw ah, muy suñuy gan di suñuy papa di suñuy yaay ñu ngi leen di nuyu waaw ah, dérangement bu ñu def ñëw fii yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen nuyu di ñaan yàlla mu fulal leen ko ndax lii mbokk la jug ziara sa mbokk jullit la lu déplacement bi yëpp yal na leen ko yàlla fay ci gën di fay di wax ba tey alhamdulilahi rabbil alamin ba ñu yàlla mayee ñu waaj bés bi ay weer ay bés ba yàlla dogal tey mu sotti ah ñu daje fi kon ñu ngi koy sante buur bi subhanahu wa taala ndax nit da ngay a rek nga am yàlla mooy mottali kon ñu ngi koy sant bam ñu mayee ñu mottali bés bi ñu teew fi di ñaanal ñi nga xam ne tam bëggoon nañoo teew te yàlla dogalu ko ah ñuy ñaanal leen bu baax a baax ñu nga xam ne tam sori nan te wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi suivre groupe bi lépp luñ ciy dugal ñu ngi koy suivre ñu ngi leen di ñaanal mooy suñu mbokk étranger yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax waaye tamit duñu fàtt mukk ñaanal ki nga xam ne moo moo def lii maanaam moo sant lii muy suñu groupe bi ñi nga xam ne suñuy kilifa yu baax doo nga fi nekk ñu ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sos yaakaar naa ne ñu ngi naan thème bu ñu war a waxtaanee walla suñu suñu suñu imam war ko waxtaanee yaakaar naa ne suma ma jumoon mooy uquwa man nag dama naan ma tem boobu ku ko tànn wala ñan ñoo ko tànn man loolu sama question ndax actualité la uxuwa mooy mbokk comme duma ci tax soril ndax comme moom moo koy kii mais wax dëgg yàlla nekk na lu ama ama ama ama solo hmm. ndax moo ñu fi dajale ñun ñi fi nekk tey fii ñun ñëpp hmm. waaw léegi nag comme dañ ma waxoon rek ma ma bañ si dugg ci temam ma dugg si sama euh, comme waxtu bi daf ñoo xoj hmm. li nga xam ne moom lañ ma wax ma wax ci si maanaam alquranul karim ndax bu ñuy xool ne borom bi subhanahu wa taala moo ne alquranul karim sama kaddu la kalaamullah man yàlla maa ko wax waaye ba ma ko waxee tamit dama wax ne jullit yi nañ ko jéem a jàng ndax buñ ko jàngee kat dinañ xam fan la ñuy teg seen tànk ci àdduna waaye ëllëg yowmal xiyaam kat bu ñu ñëwee dinaa man yàlla dinaa tiitaru ci ñoom ne ñii kat ba ma leen waxee ñu jàng sama sama kàddu dañ ko jàng ba defuñu benn safaan wala boog safaan yu bëree bëri yi nga xam ne waroon nañ ko woon def alxuraan day nekk seen leer fii ci àdduna ndax soo jàngee lu naan dara doo ko làmbatu lépp looy def danga ko war a jàng rawatina nag jaamu yàlla ndax yonent yàlla dafa na enrifoone xabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni boo ma xamut yow jaam bi naw may jaamoo munoo toog bu ceebu jën bu neex te jàngaluñ la ko foog nga xam na nga war a préparer sa jën na ngay toggee nag ba ba ceeb bi boo ko tegee nit ñi mën see mën a xewlu jaamu yàlla tamit noonu la def kenn du ko làmbatu dan xale moo war a jàng waaye jàng wàccut kenn minal di ilal di la sang-sang yi wax sallallahu alayhi wa sallam jàng du wàcc kenn ba nga nekkee sa berceau ba bañ lay dugal ci suuf jàng wàccu la ndax bu ñu fàttalikoo imam yaa ngi fii ulama yaa ngi fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de 40 ans yaakaar naa la wax yu wàcc ci moom te kon boobu nekkut jeune nekkut kii nekk na mag 40 ans la wàcc kon loolu yàlla dañuy jàngal ne bul na mag laa rek du ma jàng. ba samp kër kay. waaw kay ba samp kër bul na mag laa rek ne du ma jàng jàng du la wàcc mukk mukk mukk mukk mukk du rëy nit tamit jullit tamit du rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi ba ko yàlla jàng daf ko ne maa bi xaari in man lan laa war a jàng ak lu may jàng waaye yàlla préciser foofu ne ko iqra bismi rabbika allazi xalaq damaa bëgg kan nga jàng sa turu borom bi nga xam ne moo la bind kon ñu xam ne lépp lu ñu war a jàng baax na lépp baax na waaye alquraanu karim yamu takk lenn te du dend ak dara te kenn du ko jàng tamit di am noomel ndax yàlla moo ko nee na képp ku ko jàng man maa lay man maa lay protéger sa doom bi jàngi alquran ba bu jógee kër gi bay dem yàlla kay protéger xaraf bu mu fa jàng yàlla ko wax man xaraka man xara xarfan min kitaabillahi fa lahu xasana sayyidina ma sallallahu alayhi wasallam kon moo ko wax nee na képp ku jàng si téere yàlla bi di alquranul karim benn xarf nee na fa lahu xasana nee na yow kat am nga yiw yiw ba nga xam ne nee na ngi ko commencé si si dix mu ne waxuma laa xool alif laam mim xarfan nee na waxuma alif nga wax alif wax laam wax mim ñu defal la ñu defal la dix na déedéet soo nee alif am nga dix point nga wax laam am nga 10 point nga wax miim am nga 10 point kon boo ne alif laam miim am nga trent loolu yàlla rek moo ko mën yàlla dafa bëgg jullit yi bëgg jaamam yi ba lépp lépp lépp da leen di may ay bonus bonus nii si yàlla la commencé bu ko neexoon boo ne alif mu bind 1 mais danga ne alif mu tëb 1 ba 9 tëb indi la 10 kon nag euh, ñu xam ne jàng mooy li nga xam ne du wàcc kenn te jàng moo mooy tax nit ki xam fu muy teg tànkam rawatina nag alquranul karim xale bi ku jàngee yaayam da ciy am papaam mi koy fayal am ci yaa seedaa wala yaa seedi bi kay jàngal te daara ja am ci société bi tam am ci ndax bu màggee du sonal nit ñi du sonal société bi kon loolu mooy bénéfice su jàng ba pare boo demee yow man xiyaam nga bokk ñi nga xam ne yàlla da leen di defaral public ba nga xam ne en nord lañ koy defee teg fa ñi nga xam ne ñoo jëleen seen doom yi yóbbu leen ñu jàngi alquraanul karimul kalaamul laay bi ba nag yàlla tamit di leen ne na na leen woo malaaka yi na leen nañ leen di upp ndax ñii kat dañoo dañ leen a war a dañ leen war a jox garaat kon ñu bàyyi bàyyi xel ci jàng alquraanul karim ah wa thème bi nga xam ne tamit moom la oustaz war a wax muy mbokk moom wax na si alxuraan ci thème bi lu baree bari ay aay yu dul jeex yu dul jeex yu dul jeex yu dul jeex ndax mi ngi commencé yaa ayuhan yaa ayuhan naas ee yéen nit ñi inna xalaxnaakum min zakarin wa unsa ee yéen nit ñi ba mu ko waxee nit ñëpp a ci dugg ñëpp ñëpp muy tubaab muy senegal muy ñëpp nee na ñun yàlla ñoo leen def ngeen nekk ay góor def leen ngeen nekk ay jigéen defuma ñëpp ñu nekk jigéen waaye defuma ñëpp ñu nekk góor dama def ay góor def ay jigéen neen wa jaxale minkum shu'uban wa qabaa'ila ma def si yéen ngeen nekk ay peuple ñi nekk ay sénégalais ñi nekk ay maliyen ñii nekk ay ay gambien ñi nekk lu ne nee na bu ma leen defee ngeen nekk ay peuple la pare yemuma ci ma def leen ngeen nekk ay ngir maanaam ay xabaa'il ñi nekk ay tukleur ñi nekk ay olof Hmm, ñu nekk ay joolaa nee na loolu lépp ba ma ko defee lenn képp moo tax ma def ko ngir lan ngir li taarafu ngeen ngeen xamante mais xamante googu nag nekkul ma xam ne kii séeréer la ki xam ne man tukkuloor la déedéet xamante bi boo leen xamante ngir lan ngir ngeen weccante seen yu baax yi ngeen doon def tukkuloor bi amee lu baax na ko na na ko na ko na ko xamal olof bi olof bi def ko olof bi boo xamee lu baax na ko xamal joolaa bi joolaa bi def ko waaye nee na nag loolu lépp bu ma ko defee kenn gënut nee na foofu yëpp ñëpp a yem nee nag fenn rek la nit di gënee nit inna akramakum indallahi atqaakum yàlla nee na nit nag lu muy gënee nit mooy ki ku gën a ragal yàlla nekkul na naar bi moo gën olof bi nekkul na araad bi moo gën euh, kii bi waaye nee na ki nga xam ne moom moo gën a ragal yàlla rek kooku moom moo gën ci nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa dañu xamal lu bëree bëri ci dëkkandoo dañu si wax lu bëree bëri nee na laa yadxulu janata xaatiur rahimi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy dog mbokk du dugg àjjana kon mbokk dañ ko war a def comme nii ndax yonent yàlla wax nañ ko waxtasimoo bi hablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci sama buum bi yéen ñëpp jamian walaa tafarraqu yàlla nag buumam bi du leen lu du alquranul karim loolu mooy buumu borom bi subhanahu wa taala kon yàlla si loolu lañu wax ñu ñu ñu jàpp si buñ ci jàppee duñu reer te duñu te te te ñun du ñu dugg lenn li nga xam ne waruñu see waruñu see dugg xam naa ñu bañ di gën a guddal ndax waxtu bi dañoo tënk lu ñu préparé woon yëpp sax duñ ko mën a wax ndax jotaay bi moo ko moo ko mayewut waaw waaye dañuy wax rek xayrul kalaami ma xal la wa dal la neen wax ji wax lu ci gën mooy wax bu gàtt te jëriñe kon day suñuy foofu lañuy ñuy wàccee suñuy kàddu ah di dalalaat bu baax a baax nag suñu gan yi waaye tamit di waxaat jaajëf suñu dëkkandoo yi sama papa wax na ko léegi man mii wax dëgg yàlla moom moo ma yar moom mii moo ma yar Jurbel laa doon jóge di ñëw di vacances si moom boobu amaguma sax neuf mois neuf neuf ans di ñëw këram ba léegi nii na xam ne ma nekk magum jëmm ba tey du ma jug këram du am am lu ma du defaral wax dëgg yàlla moom mii danaan man maay taawam ma koy seede fii ndax waaw wa ma shahid naa illaa bi ma alim naa lu ñu seede nag lu ñu xamul ndax bis bi yowmal xiyaam dañu koy tegalaat ñu di ko xool waaye daf ko def wax dëgg yàlla may ñaanal tamit waa quartier bi ak waa koñ bi ndax yaatal nañu jàppale nañu bu baax a baax a baax ndax dëkkandoo kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen dañ koo sàmm ba dem sax ba nit ñi def na dëkkandoo dafay doon ndax dëkkandoo tamit dafa baax ndax dem ba léegi boo leen xooloo ñu fi fanaan ay dëkkandoo lañ fi doon gis ba mbokk yi commencé dañoo benn benn benn mm. kon ñu koy ñaanal ni mu nekkee dëkkandoo yàlla na gën a rafet waaw famille bi tamit tuur bi tamit ñuy ñaan lépp luñ ci bëgg mu dem fa mu mu kawe sax suñu njot ñu dem ba su ñuy sët di ko toogee di ko waxtaanee ñu naan troisième édition bi kat Dakar la woon nii ak nii ak nii ba sët di ko yor ndax tamit lu baax la. lu rafet la ndax dafay tax ku xamul woon nit xam ko man xam naa fi ñu bëri ña nga xam ne xaw ma leen woon te tuur bii moo tax ma xam leen waaw may wax ne lu ci jub si mbaaxu yàlla la ah lu ci dëng nag ñoo xam ne nit matul. nit matul may wax nag wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi alladi allafa bayna qulubi almuminina fa asbahu bi nicmatihi ixwana ونسها القل والحقد من صدورهم فصلوا في الدنيا أسبقاء أصدقاء وإخوانا وفي الآخرة رفقاء وقلانا والصلاة والسلام على المبحوث رحمة وهداية ونسيرا وداهيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا للعالمين mbokki réew mi mbokki tooben mbokki groupe international top tout waaye mbokki groupe Darou waaye mbokki groupe Firdawsi ñu nuyu ñëpp di ñëpp di ñëpp di jiital ci nuyo beeg siyaar bi sunu magu daara Abdoulaye Top Tanji wala Tanji mooy sunu magu daara koy ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu xëcc aw fanam di nuyu sunu njaati gi di sunu dëkkandoor bi sunu xarit ndaw ko bi mandaw di ko siyaar di ko ndokkeel di ko wàcce wàcc waayam di wax ne am nañ mbégte lool ci seen taxawaay yépp yëg nañ ko wala yëg nañ ci lu bari bokk di ñaanal itam di nuyu ki nga xam ne mooy xadi toog ñu koy nuyu bu baax di ko siyaare moom it di ko wàccee li nga xam ne mooy wàccuwaayam waaye noonu la ñuy nuyu waa groupe bi di nuyu itam ki nga xam ne moo dëkk ci gox bi yàlla sédd ko gox bi mu koy jiite ñu koy tuddee léegi-léeg chef de quartier ñu ngi koy nuyu noonu la ñuy nuyoo ki nga xam ne moom la fi yàlla sédd mu nekk ab imaam ñu ngi koy nuyoo moom it di ko wàcce wàccuwaayam mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ndokkeel di wax ne incha allahu taala ñi fas yéene waxtaan ci thème boo xam ne bu am solo la waaye thème bu am njëriñ yàlla borom bi subhaanahu wa moo ñu sant moo ñu digal ci nañuy jokk bokk xam naa Ibrahima Toob mi ngi nu doon wax ne nañ waxtaan nan la lislaam gisee jokk bokk Ibrahima toog ñu ngi lay nuyu di la sant ci hitti yu mag yi nga xam ne yaa ngi koy taxawu waaye yaa ngi koy def mbokk de yàlla moo ñu sant ne nañ ko jokk xam nga borom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla bu ko neexoon ci coobareem maçon bii di tabax kër ni mu def ba këram pare mu def ko ba adduna fees dell ak nit maçon noonu la def daa am ciment am suuf dajale jël lu ñu tudde benn kees teg kees booba di móol di teg di móol di teg ba ne lii de mën naa tabax ab néeg di mool di teg ba ne lii mën naa tabax ak kër mu pare ñun ñëpp ma laaj sama bopp laaj leen ndax jàpp ngeen ne yàlla lott na ci tabax adduna mu tabaxee adduna comme noonu mool par aadama di teg ba adduna fees Tamsir yaakaar naa yàlla lottul ci loolu pour bëgg ñu xam bëgg yërmante am bëgg dimbalante am bëgg mbokk am looloo tax mu fexe ba créer ci société bi benn benn benn euh, euh, bopp bu rëy ku ñuy wax aadama wala njiit lu rëy bopp ku ñuy tuddee aadama parce que boo seetee ci alquran da nga gis yàlla na ya yoon naasu taqoo rabbukum allazi xalaqakum min nafsin waxida yéen nit ñi ragal leen seen borom ñu ne ban borom mu ne borom bi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan nafsu waahida mooy maam Adama waaye gis nga wa xalaqa minha zawja yàlla bind ci maam Adamum jabara ja muy Hawa ba pare nag wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa yàlla nag doo génne ci maam Adama ak Hawa. génne ci ay góor waaye génne ci itam ay jigéen loolu tax bu neexoon yàlla nim def maam aadama lay def ba adduna fees di móor rek ku mel ni maam aadama di teg ak xawaa ba adduna fees waaye konoon adduna du neex de mbokk jullit yi bàyyi ni mu neexee wanaa ku ñàkk bàyyi rek ko xam yaay ni mu neexee ku ñàkk yaay rek moo xam lan mooy yaay mbokk ni mu neexe ko am mbokk rek moo ko xam loolu nag yàlla bëgg loolu juddu tax mu kere baay keree nday waaye keree xaat lépp luy juddoo mu juddoo ci ñaar ñi su boobaa bu ñu nekkee su nekk dana rafet moo yàlla gaaw ñuy wëtuloo moo tax da dégg léegi-léeg ñu ne yéen ñëpp ci maam aadama ngeen baye ko waaw ci aadama lañ baye ko de ñun ñëpp ci xawaa lañ baye ko waaw ci xawaa lañ bàyyee waaye bi ñu demee di dox ba ca kanam front yi daal di génn bànqaas yi daal di génn jaxasoo commencé di dugg yàlla ne taxaw leen nag ma réglé moo tax lim njëkk def mooy xaraamal njaaloo moo tax yàlla ne wala taqrabul zina bu leen ko jege ndax baaxul dafay yàq société dafay yàq ak mbokk bu mu dugg ci biir njaalo li muy njëkk a def mooy day def fekk famille bu rafet bu sell mu dugal ci ab salte misaal mi mooy da dem ca marché ba jënd fa benn saako orange wala mango waaye bi nga ko jëndee fekk nga ci benn doom bu baaxul doom boobu soo moytuwut mën na yàq mën a yàq saako bi yëpp taxaw googu yàlla taxawloo ñu nag dafa bëgg a wane ne mbokk nañ ko bàyyi xel moo tax boo seetee ci euh, catu aaya bi yàlla day wax ne wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi waaye nag wal arhama ragal leen yàlla mi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaam da ngeen taxaw ci kanam yàlla laajante laaj mbokk gi ndax fonkoon ngeen ko wala toppatoo ngeen ko wala toppatoo leen ko loolu incha allahu taala dana am yaakaar naa loolu bés bu muy am ku mel ni xëy toog du am benn problème ndax day wax ne yàlla man la ma santoon laa def waaye yaakaar naa ne Ibrahima mii ak taxawaayam bu rëy bii yaakaar naa ne dëgg-dëgg dana xam yàlla borom bi subhaanahu wa xam na ko waaye moom it layam dana yomb ndax taxawaayam ni mu rafetee ci wàllu mbokk ji mbokki jullit mbokk dafa am benn saaba bu ñu tubee abul ayobal ansaar yi moo li benn hadis mu ne benn aaraab yi dafa gaaroon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko damaa bëggoon nga xamal ma axbir nii maa yuqaribuni ilal janna waaye wa yubaahiduni min an naar damaa bëggoon nga xamal ma loo xam ne su ma ko defee loola daf may jegeel aljanna waaye du ci yem daf may soril safara ñu déglu bu baax li yonent bi sallallahu alayhi tontu mbokk moom daf na ko li ci jiitu mu naa ah, mu ne ko du laa ngay fexeel ba jaamu saboroom jaamul yàlla bi ñu fi dajee léegi léegi léegi am na genn xeetu jaamu yàlla bu ñu fi fekk ñu koy julli ñu koy tuddee julli tisbaar yéen samay bokk nañ di fonk jaamu yàlla nañ di fonk julli waaye nañ koy seetlal danaa di wax na Sénégal danañuy julli lool waaye des naa sell nag nañ koy gën a sell gën koo fonk dafa ne ko na jaamu yàlla wala tusrik bii say a waaye bal bokkaale yàlla dara naa ne bokkaale nag bëri na lool tey ci réew mi démb rek maa ngi def benn xutba jumaa ma ne xam nga Sénégal léegi yàlla am na fi doom xam bésu ngénte xam bésit buñ koy tudd ak bés bu ne daal am na fi man nag dama ci dama ci def jàngat bu doy waar dama ne man de yàlla bu fekkee ne dafa am benn bés boo xam ne am na ci lu ñuy tuddee doom ñu koy tudd boo demee yow kan ngay ndawtal muy benn boo demee kan ngay ndawtal ñaareel bi ma yàlla su fekkee am na doom ba àdduna sosoog léegi lum néew néew euh, juróom-ñeenti téeméeri at mi koy bëgg a mat wala mu ëpp waaye ba tey yàlla doog a am doom yéex naa taawlu kon de waaye ma ba àdduna sosoo ba léegi li fi jaar ci jigéen ñu rafet ak ñu baax ba ci benn jigéen bu ñu tuddee mariyam ñu ne mooy premièrement jabaru yàlla borom bi subhaanahu wa taala ma ne kon de mën naa muñ mën naa muñ lool kon yooyu ay xeeti bokkaale la yoo xam ne bari na lool léegi nag li ci gën a métti mooy ñun dañoo wàcc suñu ndab dem ci seeni ndab bu ñu yemoon fi ñu yem wala fi ñu alquran yem loo konoon problème du am ah ki sa alayhi salaatu wasalaam de moom waxutoon ne moom doomu yàlla la mariama it waxut ne moom jabarab yàlla la waaye xanaa kon dañ koo tuumaal moo tax abul ayub al ansaar yi ci hadis bi yonent bi daf na bul bokkaale yàlla ndax bokkaale yàlla mbir mu màgg la moo xam ne yàlla mënu ko jéggaale waaye lem ca teg rek mu tukki mu salaata boo pare mënu ko na ngay julli moo lépp lu nit mën a jàpp ak lu mën a doon na nga ko booleeg jaamu yàlla na nga ko booleeg julli julli mooy jaamu yàlla gi gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi moo tax yonent yàlla maaman nee na képp koo xam ne màgg na julli daanaka màbbu nga sa diine waaye bi boo demee ba ca mujj ga daf na nga génn asaka ana ca teg wa tasilu na nga jokku bokk kon nga gis ne bokk na ci li nga xam ne dafay jegeel nit ci aljana duwal ko fa waaye di la safara mooy jokk bokk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaan ne jokk bokk bokk na ci njëriñam mooy day tax nit ki war sagam yaatu ku la gën a fonk mbokk gën a yaatu war sag ku la gën a fonk mbokk moo gën a gudd fan dafa yokk fan xadis la yonent bi nee na man sarrahu an yubsata lahu fi risqihi wa an yunzaa fi asarihi rek fal yasir rahimu képp ku bëgg saw fan gudd yàlla yokk sa warsak nee na del jokk bokk ab sëñ bi jokk mbokk yàlla da koo fonk tax na boo jàngee alquran dañoo wax ne yàlla borom bi subhanahu wa taala tudd na al arham fukki yoon yàlla tudd na ko ci alquran mbokk te benn bu dafay wane ngëneel li nga xam ne moo nekk ci jokk bokk boo demee ca suratu ali imran ayab cinq yàlla nga fay tudd mbokk huwa allazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha laa ilaha illa al azizul hakim boo demee suratu nisa jàng na jàng nañ ko léegi yaa yaa naasu taqoo rabbukum ba ilaa aaxiril aaya naka noonu wattaqullaaha allazii tasaaluuna bihi wal arham inna laaha kaana aleykum raqiba yàlla nee na ngeen fonk mbokk ndax yàllaa leen di bàyyi xel képp am mbokk te fonk la ko boo dajeeg borom subhaanahu wa taala danga ko réccu boo demee ci suratul baqara aaya deux cent cinq yàlla fay wax mbiram mbokk boo demee suratul an'am soixante quinze aya wallazina amanu min ba'du waajaru wa jaahadu maakum fa ulaika minkum wa ulul arham yàlla nee na baadum awlaa fi kitaabillah naka noonu boo demee ci suratul rahdi aaya juróomeel yàlla nga fay wax mbokk boo ci suratul lansaab yaayaa ngi fay yàlla ngi fay wax mbiram mbokk boo demee ci juróom-ñaareel juróom-ñaareel yàlla suratu Luqmaan mooy juróom-ñaareel ba yàlla ngi fay wax mbiram mbokk ci aaya 33 boo demee ci suratu Muhammad te mooy juróom-ñetteel ba yàlla ngi fay jàngale mbiram mbokk ci aaya 22 boo demee ci suratul hajj ñeenteelu aaya boo demee ci suratul mumtahina naka noonu itam yàlla ma ngi fay wax mbiram mbokk am solo gi nga xam ne mbokk am na ko baatu aqaahu mooy firi mbokkam bi damiiril xaayibi aqaahu mbokkam arab day wax ne mbokkam mooy ki fi newul ñëw na ci alquran juróom-ñaar yoon boo seetee ci alquran baatu aqi bi damiril mutakallimi waa juy wax di jëmee ci boppam naan sama mbokku loola it lum néew néew juróom-ñaar yoon ñëw na ko ci alquran boo demee ci alquran da nga fa fekk yàlla li muy wax ixwaanuhum seen mbokk ya lum new néew moom juróom-ñaar yoon ñëw na ci alquran moo tax yàlla ne yont yàlla muhammad mbokk a ngi nii de man maa ko bind bi ma ko bindee xalaxtu ana rahman xalaxtu rahima wastaqaxtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu waaye waman wasalaha waman qataha battattuhu yàlla maamal nee na mbokk man maa ko bind xaralee ko ci sama tur mooy génnee ko ci sama tur ndax baatu arrahman soo daggeen liif ak nuun rahim moo cee des mu ko ci lañ ko xaralee turam kon ci tur yàlla la génne mu ne képp ku jokk bokk nag na nga yàlla dana la jokk waaye képp kuy dagg mbokk itam yàlla dana la dagg yal yàlla mosoon ñi ci yàlla dagg ñu borom xam-xam yi nag dañoo wax ne mbokk ñett rek ñoo koy jokk ñu bàyyi ci xel bu baax man ak yéen la ca jiitu mooy làmmiñ ñaareel bi mooy loxo day jokk mbokk ñetteel bi mooy tànk ñooy jokk mbokk amul ñeenteel ñett yi rek ñooy jokk bokk la ca jiitu mooy day jokk bokk ana nan la koy jokkee fa bi sukkuuti an huyubihi wa xiibati wa an taamuruhu bil maarufi wa tanhaawu anil munkar làmmiñ de dana jokk bokk nu koy jokkee moy fexe ba téye téye làmmiñ yu maanaam mu téye boppam ci du wax ayibu mbokkam soo amee sa mbokk bal di tudd ay xëyibam dee ko nëbbal xëyibam soo amee sa mbokk bal ko di jëw bal di teg ci gannaawam loo xam ne rafetul soo sa mbokk dee ko digal lu baax soo amee sa mbokk dee ko tere lu lii mooy cërab làmmeñ ci jokk bokk ana lan mooy cërab loxo ci jokk bokk mooy an tuhiinahu bi maalika wa quwwatika loxo day jokk bokk ci lan mooy nga dimbali ko ci sa alal sa am-am waaye nga dimbale ko ci sa doole dafa am ñaari mbokk ñoo xam ne ndeysaan dañoo amoon bor waaw kii dafa am bor ci am bor ñu bokk ci benn dëkk bi Abdoulaye Toob di dox ci dëkk bi di dox ci dëkk bi ba ci kanam dégg ni imaam toogaal borom bitik sàngam daal mi ko yoree un million te boo demee ca beneen bitik ba Ablaye Top moom it ma ngi ko yoree million waaw waaye Ablaye Top bi mu déggee ne Imaam Top dafa am gor deret ji mënatu koo muñ daa fexe fexe ba lijjanti ba xam un million dem ci borom bitik ne ko maa fayal Imaam Top borom bi ah imaam toom nag xam naa dama ko misaalee noonu rek waaye moom xam naa baaxeewul noonu waaye moom it muy dox di dox di dox di dox di dëkk bi ba ca kanam mu dégg na laay Toog de dafa am bor fan la am bor mu ne bitik sàngam mu ne ñaata ñu ne un million mu jaral ko guddeeg bëccëg lu ne mu def ko pour fay bor ba ba yàlla def jàmm mu am bor ba daal di dem fay ko ñu doxal tuuti nag imaam Toog yàlla dimbale ko mu am aw aw million mu ne ma daw fay sama bor bi mu ñëwee xàkk borom bor bi nuyaanteeg moom mu fay ko mu ne ko ah nga jéggal ma de waaye sa bor bi yàgg na ma ñëwoon nag pour bëgg la ko fay mu ne ko laaj boobu bu ko laaj toog fayee kenn fa xam kañ la mbokk lii rafet na rafet na ay rafet na wallah imaam toog moom it dajale ab un million dem di fay wala xam laaj toog boobu it dajale un million dem di fay borom borom ñëw daal di nuyu borom bor bi na ko ah nga jéggal ma de bor bi yàgg na waaye hitti yi nangama nangam mu ne ko ban bor mu ne ko bor sangam ak sangam mu ne ko imaam toog fayoon na ko bu yàgg bu yàgg yàgg xam naa ne ma ne sama classe bi bokku ci xanaa ndokku ndaa gi laay doon rek <laughs> ma ne mbokk yi mel nii bu nekkee ci gox mm-hmm. jàmm rek moo fay nekk waaye mbokk mi gën a yées ci mbokk mi mooy mbokk moo xam ne problème rek ngay déglu ci sa mbokk ak bëri dafa yore bot dañ koo téye dafa am problème nawet pasoo daa dee ma nga hôpital yooyu rek ngay xaar ci sa mbokk loolu dëgg dëgg rafetu danañ ko jàppale parce que ba tax yonent bi nee na woon mbokk ak moromu mbokk xam nga nu mel mu ne comme ñaari loxo ñaari loxo ndeyjoor ak càmmooñ kenn mëntu raxas sa bopp kenn ku ne sa morom moo lay raxas fexeel ba raxas sa càmm sa càmmoñ bi raxas boppam mënu ko nday joor rek koy raxas moo tax booy jàngale ci téere fiq yi ma ne léeg-léeg nga dégg ñu ne nday joor bi na raxas càmmoñ bi ma ne leneen mënul lu mooy loolu loolu moo mën a nekk nday joor bi mooy raxas càmmoñ bi càmmoñ bi mooy raxas nday joor bi loolu rek mën a nekk wala jëm leen ko xanaa ndopp nday bi moom dañ ko mën dem déedéet kenn mënu ko waaye loxo kat mbokk baax nañ de ndeke mbokk noonu la war a mel ak moromu mbokkam moo tax ku ñuy wax xasan dafa waxoon ne salafu saali démb de ñoom niñ fonkeel mbokk ak dimbalante demoon na ba da gis benn mbokk moo xam ne dañoo bokk ci benn dëkk bokk benn manaan wala mënuñoo bokk manaan ba bu sedd jotee ñu ne nañ ko xotti ci digg bi nga jël lafet ma jël lafet ndax yaakaar ngeen ne ñu ngi dund loolu tey ku ñuy wax Abu Salman ad nii moom dafa wax ne man de damaa fokk sama mbokk ba lu mu am ma xeeb nee na man sama mbokk su fekkoon damaa am adduna li ci biiram yépp ñu dajale ko teg ko ci sama loxo ma jël ko teg ko ci sama loxoy mbokk mu ne ma xeeb la ma ko jox yaakaar naa ne loolu lu rëy rëy rëy la hadis boobu bi ma ko liiree sama xel dañ na ku mel ni Ibrahima coono bi ma yëg yëg mu daj ko ci lu mel ni ak tadi bu dee ci wàllu tànk dafay jokk bokk ana tànk bokk euh, tànk nan lay jokkee bokk mooy an tamsi fi siyaaratihi wa fi hawaijihi wa xiyaadatihi isa marida mhm. tànk day jokk bokk na lay jokkee bokk mooy fexe ba sa mbokk ngay dem di ko nemmeem di ko dimbale ci ay xaajoom déglu leen waa ji imaam li muy wax am na solo de moo ñu fi dajale déglu leen ko yéen jigéen ñi yéen jigéen ñi déglu leen li imaam di wax nga di ko dimbale ci ay xaajoom waaye di ko seeti bu feebaree bu feebaree nga dem seeti ko mbokk dañ koy seeti bu feebaree waaye waxuma nag seeteem ndaw ku ndaaba waaw am na ndaw ku ndaw boobu moom ku mu seeti boo moytu bu fa bàyyee ko dee rek moo ciy tege ah, hmm. ah, xam nga ndaw ku ndaw euh, dafa seeti mbokkam ma ci hôpital ba fekk mi ngi tëdd feebar baa ngi metti lool mu daal di nuyaanteeg moom mu fay ko noo def mu ne ko ah, maa ngi tene de mu ne ko ah bi feebar di yëg naa ne ku mosa dal rek dafa dee bii diw sàngam daal station bi ba mu yéegi man daal damaa toog rek ñu téléphoné noonu la nekk di nekk di nekk ba waa ji moom def na ngéej waa ji génn ci biir hôpital ma tax nit bu feebaree dafa am nañ koy seetee boo seetee sa mbokk mu feebar daf koy defal dalal ko di ko wan sax bu jaree fen sax nga fen ndax léegi-léeg am fen yu dagan feebar bi du dara dañ ci génn dañ ci mucc yow li nga def ci mbaax li nga ji jullit yi feebar bii doo ci des li nga jëliñ jullit yi yow yaa mel nii yaa mel nii su fa bàyyee ko du dëgg la léegi-léeg day xalaat naan ah boo yàlla maa man nee na képp ku dox hmm. ci xaajo mbokkam ba xaajo ba sotti moo xam guddi wala bëccëg nee na daa mel ni ku def ihtikaaf weer ci jàkk wala ñaari weer. leeral ihtikaaf mooy lan. ihtikaaf mooy jaamu yàlla gu ñuy defee ci jàkk. la ca ëpp ci liñ koy def ci weeru koor lay doon. Hmm. la ca gën a néew day mat bés ak guddi. waaye moom nag dafa wax nga def lihtikaaf ñaari weer ci jàkka yoo xam ne ngay julli ak woor ak jaamu yàlla loola la muy rëy rëy ak la muy màgg màgg màgg dox ci xaajoof sa mbokk baaju ba ba sotti ne na mu këpp doole Ibrahima doon def nii ak xaritam. mu ngoog. yonent yàlla Muhammad dellu waxaat ne. Hmm. képp koo xam ne da dox ci xaajo mbokk. Hmm. benn jeego boo ci sépp dox. Hmm. yàlla dana la ci bindal juróom-ñaar fukki tiyaabo. mu ne xaajo ba nag moo xam yàlla faj na xaajo ba wala faju ko. yàlla dana la ci bindal juróom-ñaar fukki tiyaabo. te it nee yàlla dana la. setal ci bàkkaar ba mel ni bés ba nga juddoo kon yaakaar naa ne loolu mbokk rek ci nga ko mën a amee mënoo ko amee ci lenn mbokki jullit yi mbokk lu am am solo la borom xam-xam yi ñu bank lii nag bëggoon naa ñu ñëpp ñu gën ci bàyyi xel borom xam-xam yi nee nañ fukki jikko lay joxe fukki jikko yi ku ci bëgg fonkal sa mbokk xëy toob loo fonkoon sa mbokk gën koo def Abdoulaye Toob ñun ñëpp ñu gën caa góorgóorlu yonent yàlla Muhammad nee na jokk bokk la ci jiitu mooy fiyaari dallaahi day tax yàlla gërëm la ñaareel bi mooy idqaalu sururi alayhim day sax day tax say mbokk bëgg la ñetteel bi mooy malaaka yi dañ lay kon dañuy bëgg sa jëf ci mooy dañ lay fonk ñeenteel bi mooy dangay xam wuy wu rafet juróomeel bi mooy seytaane nag daf lay bañ lay bañ de seytaane bëggul kuy jokk bokk seytaane dañ ko waxoon lan lan moo la gënal hmm. mu ne su fekkee ne mën naa wax li ma gënal dëgg mooy diggante ñaari mbokk yoo xam ne dañoo xànd ba xuloo ba xeex bëgg caay juddoo ba kenn ki ne ko danaa la rey bokk na ci li seytaane gën a bëgg. loolu la gën a bëgg mën waaw moo tax nag su fekkee nit ki day jokk bokk na nga yëg ne yaa ngi def loo xam ne saytaane moom bëggu ko kon nag lu mën a def daana ko yàqal. Mm-hmm. waaw bokk na ci li nga xam ne jokk bokkoo doy def waxoon naa ko léegi mooy day dolli fan waaye day yokk war warsak day taxitam itam way dee ya maam ya mm-hmm. tey bés bii daf leen di dafay dafa neex ci ñoom mm-hmm. dañ cay kontaan. waaye jokk bokk dafay def lan dafay daf day day yokk cofeel day yokk mbëggeel waaye nee na jokk bokk itam dafay tax say tiyaabo yokk yowmal qiyaam yonent yàlla Muhammad dafa wax ne am na benn waaye ngi nii daa dem ba dundam des ñetti at dong dong dong mm. mu dem jokk bokkam mm. ñu dolli ci fanweeri at ëpp ah waaw am koo xam ne dafa dem bu dundam des fanweeri at hmm. mu dog ak mbokkam ñu gotti ko bam des ñetti at waaw ñu safaano moo waaj waaw ñu safaano waaw ñu ne ah yonent yàlla Muhammad loolu lu mu mën a mu ne ah kay day xam yàlla moo wax ci alquran ne yamhu llaahu ma yasha waaye nag wa yusbit yàlla mooy saxal lu ko neex waaye nag mooy fol lu ko neexit ñu ne lu tax mu ne dossier yi moom moo ko yoon xam nga ki yore dossier yi buy folli du la yëgal moo tax la muy def moom rek moo ko xam mbokki jullit yi ñu bëggante te yàlla tax ay mbokk dañuy bëggante te yàlla tax yent yàlla ma am nee na am yàlla nga am ay jaam yoo xam ne yowmal qiyaam dañuy nekk ci ay chaise yu leer toogukaay leer nekk ca kaw jullit yi di leen xool ñëpp ñëpp ñee leen yonent yi dañ leen di ñee soxadaaw yi dañ leen di ñee ñu ne yonent bi ñooñ mooy ñan mu ne mbokk yi nga xam ne dañoo bëggante woon te yàlla tax al mutahaabboona fillaahi mooy ñu bëggante woon te yàlla rek tax yonent yàlla Muhammad nee na bu yowmal xiyaamee sax am na lu gën a neexati loolu mooy yàlla borom bi subhaanahu wa mooy jóg waxal boppam ne waaw ay na almu taxaboona fiyee yi ala mooy ñi bëggante woon te ma tax mu mel ni ñu ne ñu ne ñu ngi nii yàlla daal di waat na fa waxisati mu waat waaw maa ngi waat ci sama tedd nga wa jalaali ak sama mag al yawma tey hmm. fii kena amu fi dara waaye maa ko moom hmm. tey de usilluhum bi zilli yawma laa zilla ila zilli oh. tey yéen ñëpp damay jël dugal leen ci sama ker gi yéen mbokk yi nga xam ne da bëggante woon te yàlla tax mbokk yi déglu leen li waa wax loolu daal moo ñu fi dajale nag ñun. Mm, waaw acca euh, mbokk dañ koy jokk waaye kenn du ko dog am na benn waay boo xam ne dafa waxoon ne yonent man de dama am ay mbokk waaye man dama leen a jokk ñu may dagg mm. ina li xarabatan usilluum mm. wa yaqtooni wa ursinu ilayhim wa yusiuuna ilayya yàlla dama jox ay mbokk ma leen di jokk waaye ñoom ñu may dagg may rafetal jëmee ci ñoom ñoom ñuy ñaawal jëmee ci man man ma leen di muural seen ayib ñoom ñuy wuññi sama sama ayib yonent yàlla Muhammad ne yàlla wala yàlla boog ne yonent yàlla Muhammad hmm. képp koo xam ne noonu lay def képp koo xam ne da yor ay mbokk di leen jokk ñoom ñu lay dagg nga di leen toppatoo ñoom ñu lay toroxal na nga yëg ne su fekkee ci loolu nga nekk nekk ca yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi ngi mel ni yaa leen di mëqal doom bu tàng moo tax def naa benn conférence ci Saloum benn waaye laaj ma lu laaj bu mel nii ne moom daal dëgg-dëgg dafa am mbokk moo xam ne daal hmm. euh, dafa doy waar lool mun mun taam ci moom lu ko neex hmm. ma ne ko mbokk moomu la yàlla wax nañ ko jokk mbokk feeg dogut xam nga buum bu dagut kenn du wax na nañ ko jokk hmm. buum kay bu ne nañ ko jokk dafa dagg kon mbokk mi nga xam ne daf laa wan gannaaw kooku la yàlla wax na nga ko jokk ki dugg ki dugg kay ba tax kay taxu ñuy wax silman xataaka waaw silman xataaka jokkal ki la loolu la yàlla borom bi subhanahu moo tax yonent bi nee na su fekkee ne nit ki yaa ngiy jokk sa bokk ñoom ñi lay wan gannaaw daa mel ni yaa ngi leen mëqal doom bu tàng te yàlla du dañ mukk di la dimbal kon mbokki jullit yi nañu góorlu di jokk suñu mbokk luñ ci man nañ ko def xam naa dañ koy tënk ndax waxtu wi dafa xaw a xat xoj nañu lool dañuy indi rek benn borom xam-xam boo xam ne daf ci wax lu am solo nee na amara rahmanu silata rahimi waajiba ansalal amra fi sunnati wal kitaabi sallu arhamakum doona minnatin yahfusukumullahu min alami wal hasaabi nee na yàlla moo digle ne mbokk dañ ko war a jokk waaye sax nee na jokk bokk dafa war mu ne boo demee ci sunna da nga ko fa fekk waaye boo demee ci kitaab muy alquran da ko fa fekk war gi waaw mu ne aranaasa gis nañ ne léegi nag jamono jii ñu toll xat xajjiroo araamum nit ñi ñëpp dañoo gàddaay seen mbokk léegi daal mbokk mu amul yow bokkatoo mbokk faaw nga am rek ci weccet yi mm-hmm. ah nit ñi boole la mm-hmm. mu ne mbokk léegi wa akkalul miraasa sulman bilaa hitaab léegi dem nañ ba bu nit dee sax mbokk yi la ñuy njëkkante mooy nu ñuy def ba rek xaalal ji rek te dem da ngay léegi nga gis koo xam ne day njëkkante jël soxna sax lu tax oto bee rafet kër gaa rafet yooye rek lay njëkkante ci moom te moo moytul loola bu jeexee sax ba moytul mën na koy dem woon gannaaw moo tax mbokku dafa war a taxawu nag mbokkam amaaman wa xalfan kanam ak gannaaw yépp nga taxawu sa mbokk moo tax benn borom xam-xam dafa nu wax ne ahlul mahabbati wal mawaddati yëpp xaaboo mu ne cofeel léegi daanaka amut waaye intérêt moo am nit koy àndal rek daanaka li ci ëpp ci intérêt nga àndee moom waaye pour nga ànd ak moom te yàlla tax loolu moom lu néew la moo tax mu ne <laughs> mu ne ah sa samaanu tafaraqal abaabu mu ne jamono ji ñu ne ah mu ne soppi piir amatul te li ko waral rek mooy intérêt adduna yi léegi moo bëri day wax naa hablul wilaadati xat taqataat aw saaloo mu ne buumu cofeel ak mbëggeel léegi daa mel ni dafa dagg nit koo xam ne yaa ngi ànd ak moom ci intérêt lay ànd ak yow waaye du ànd ak yow te yàlla rek tax loola nag mbir la moo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax waaye yaakaar naa ne ku ñëw ci jataay bii a ah gis sunu mbokki toobeen yi taxawaay bu rëy bii nga xam ne ñu ngi ko taxaw da nga xam ne dëgg-dëgg ay jàmbaar lañ waaye da xam ne dëgg-dëgg mbokk jaral na leen kon ñu ngi ñaan ci yàlla borom bi subhaanahu wa taala ku fi ñëw nga indi xaajo mbaa nga indi feebar ak lu mën a doon yal na yàlla saafara loola ànd gi yal ko yàlla dëgëral yal na yàlla defal ñu jàmm ak sunu njaboot yal yàlla yokk njub gi yàlla yokk mandute gi réew mi yàlla fi yàlla def jàmm. amiin euh, li ñuy tëjee. Hmm. mooy nañ di dimbalante. mu ne la ñuy tëjee déglu leen ko. mu ne la ñuy tëjee moom waxtaanam bi mu ne ko déglu. ak na lu ñuy tëjee imaam. li ñuy tëjee mooy nañ di dimbalante te yàlla tax yàlla dafa wax ne. Hmm. taxaawunoo alal birri wa taqwa. Hmm. waaye nag wala taxaawunoo alal ismi wal xudwaani dee leen dimbalante ci ragal yàlla hmm. dimbalante ci topp yàlla hmm. waaye nag ba leen dimbalante ci lépp loo xam ne dafay jur ak bakkaar oh. ak lépp luy jur ak noonoo na ngeen ko sori allahu di wax ne buñ di buñ doon dimbalante hmm. yaakaar naa ne réew mi luñ bëgg mën nañ ko am waaw kon kenn du sonn kenn du sonn mukk kenn ku ne foo toll rek say bokk jàppale la dimbale la yaakaar naa ne danga jëm ca kanam Eh, kon nag yal na yàlla defal ñu loolu amin yaa rabbal alamin yi nag dañuy wax ne min kasarati taami tooju bu tux ma moom mooy lu mu firi <laughs> ah, ñu ne lekk léeg-léeg bu bëri dafay waral fër <laughs> biir bu ah, moo tax comme nag ah, lii suñu soxna sa li wax léegi hmm. xayru kalaamin maa xalla wa dalla xasa kalaam lam yakun xall hmm. bal kasiir hmm, waaye yal yàlla def ko mu nekk loo xam ne ni dal amin wax ji xaw naa bëggoon nañ mu néew mm-hmm. waaye li muy bëri man yal na yàlla def ku mu nekk loo xam ne day jëriñ amiin yal nañ ci jëriñu saayir ak baatin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysiir amiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf nahmaduhu wa nastahinuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min sururi anfusina wa sayyi'aati a'maalina man yahdihi llahu fala mudilla lahu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 zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaan wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arhama inna in akramakum indallahi atqakum assalamu alaykum mbokki groupe Daaru euh, International maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen mbokk la Abdoulaye Saalum Saalum Gambia taalibe sëriñ Modou Top mu maam Alaaji Aada Top bi ñu tuddee imaam Adama Top mi di jeexal léegi ay kàddum suma maam lañ ko tuddee man mooy suma adresse kooku moom loolu lañ séq maam moom loolu lañ bokk maam moom imaam Adama Top mi wax ni niñ dendee nii lañ bokkee naanukaay lañ bokkee fuñ jàngee lañ bokkee lépp loolu dama ko bëgg a seedeel groupe international li jaar sama diggante ak imaam Adama toog ak li ci nekk kon loolu moom boobu moom boobu jàll na ñi ngi nuyu nag mboolem ku fi toog ak sant woo mën a sant ndax ñun askanu toobeen sant yëpp lañ bokkat waaw sant yëpp lañ bokkat ah, ah, mu ne yëf mu ne yëf ndaw ku yaa ngi ñëw waaw yonent bi alayhi salaatu salaam nag lii imaam Adama Taw wax nii ak soxna si fi bayee ko loolu lay wax rek mu ne laa yominu ahadukum hatta yuhibu li aqihi maa yuhibu li nafsihi mu ne du ngeen mën a euh, gëm yàlla mu gëm yàlla gu mat lu dul da ngeen bëggal sa bopp li nga bëggal sa mbok kon nag mbokk yi nañ bëggante ndax ñu mën a xam jàmm ndax ñu mën a uh, jaamu yàlla a ah, dafa mel ni yëfu ndaw ku ndaay ñëw na bu ñëboo rek gàttal ba xam fan la yëf yi mujjee askanu Sénégal nuyoo nañu di waaye nag ñu ñaanal jàmm képp koo toog na sax nekk ci suñu réew wala nga nekk à l'étranger ndax yàlla def ñu réew ci suñu waaye nag ñu ñëw ci suñu réew muy un grand tour de famille vidéo de famille muy am le 24 25 décembre à Patte d'Oie. ah mu nekk jour bu rëy waaye yàlla suñu spécialité bi. toobee nuyu naa sant toobu tànnéef. dogal la bu neex suñu borom. alhamdulilahi bi mu ñu santalee toog. noo sant nga di toog. foo bokk toobee. toog di beneen toog. toog di askan. xam sa bopp ci jàmm yàlla la bokk. waaye Adja Khadi Top la coordinatrice dafa woo ma ñëw mu ne ma ay jeexalaat monsieur Alassane Top le président de Top famille internationale waxul la ñeneen lañ ko dajale bis lañ bokk yàlla moo ñu ko defal ndax ñun su ma yeboon ni Sénégal yëpp lañ bokkat ndax ñun bokk nañu ak Cheikh Omar yu taal ña nga bokkee moom ca Boun Ilias Mouhamed mu bàyyeekoon Égypte ñëw Mali bàyyeekoo Mali ñëw Fouta Tooro fu ñuy wax Waalalde ñun ña nga daje Cheikh Omar Fouti yu daal ca Boun Ilias Mouhamed bokk ak maam Xaadimu Rasuul ci ku ñuy wax Penda Mbàkke ndax ñun suñu suñu maam amoon na ñetti soxna ku ñuy wax Penda Mbàkke ak Jaxu Congaan ak Xawa Faal sama baay a ngi nii toog Baay Omar Daaxo dëkk kër Omar Daaxo xam na li ne lu wér a wér la faa ma ko teg léegi Xawa Faal moomu moom moo jur ku ñuy wax Sàmba Xawa Faal Samba Awa Fall moomu nag moo jur ku ñuy wax Demba Adam Top Demba Adam Top nag moo jur Sadio Karamata Sadio Karamata moo jur Alaaji Ibu Buri moo jur Baye Omar Daaxo mi moo Karamata moo jur Mari Top moo jur sama baay Sadio Karamata moo jur Laay Top moo jur Alaaji Sadio Top eh, baay Aji Awa Bago Top moo jur

bi sax ci Ndakaaru boo jut maa bi sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma ci bu moomu moom lañ tuddee yaayu gaynde Fatma ak euh, musulmaan Xaadimu Rasuul léegi ñun ci atum mille cent cinquante deux wax ne ci la empire des Ghana tàbbi ci islam bi suñu maam Aboubacar Ibn Omar fekk mën na nekk ca Mauritanie ci fu ñuy wax singit Aboubacar ibnu Omar moomu nag moo bàyyee ko woon singit dem ci xare boobu ñuy wax am de Ghana pour di fa jaar ngir mën a doxal l'islam bi ci at moomu nag ci la dem Ghana am séeréer bu ñuy wax amar gëdd maat amar gëdd maat fett ko ndeke fett gi dafa am tooke kon xam nga séeréer yi dafa yàgg nañ ci adduna bi ci la nag mu ne day dellu si ngiti ngir faju jam-jam ba bi mu dëppee bi mu ñëwee faju jam-jam bi ba mu wér mu ne nag léegi dafay jóg ngir jaar beneen yoon waaye nag bi yoon bi mu jógee fan la jëm si mu ngi jëm si Fuuta Tooro ngir jaar bi muy ñëw nag mu ngi ànd ak njabootam ak ay bokkam mu ngi ànd ak bu ñu wax Mariam ak doomam bu ñuy wax Lanlier Lanlier moomu sax moom yaayam da ko tuddee ndax Aboubacar ibn Omar yaayam sërif la yi la tudd ñi nga xam ndax doomam bu ñuy wax Omar euh, Aram Boubacar nga xam ndax Wahab ak Ibnu Wahab ñooñu ñëpp ay doomam ne ak bokkam ñëw dëkk bu ñuy wax Borono Goyaar ñu ci frontière Mauritanie ak euh, Fouta Tooro léegi nag buñ ne njaajaan njaay nag naka la nekkee seen maam yéen ngeen sant Njaay ngeen sant toog nangu sant Njaay pour dafay xaw a jaaxal ñu bëri waaye sant ci boppam moo yàggut te sant itam yaatuwut te sant day wecceeku ndax Njaay euh, li ma leen wax loolu Sare Njaajaan ak Gedd Njaajaan Gedd Njaajaan moom moom dafa toogoon ba mujj gi mu faatu doomam bi ñuy wax Geddoo Gedd nekk fa geddoo gen moom nag moo toogoon di xaar place bi pour jot ci nguur gi mu toog toog Sëriñ Jaajaan mu ne moom nag kon léegi gedd na sant njaay wi dafay dem gàddaay dem sant na Jóob ñu ñëw wax ko Sëriñ Jaajaan ne ko ah sa doom ji gedd na mu ne moom daal sonn na di xaar nguur gi jotu ci ba sant na sax léegi Jóob santatul njaay mu ne ah ñu ne waaw mu ne dab leen ko su ngeen ko dabee fu ngeen ko jotee ngeen taal ndaay ndaay gi nag bu leen ko fay de bàyyi leen ko rek muy tàkk ba fu ndaay gi fayee rek loolu yëpp jox nañu ko ko ci nguur gi muy wàllam ñu dàpp ci dëkk bu ñuy wax njaayeen saa buur ci jorom ñu taalal ko ndaay gi muy tàkk di tàkk ba àgg fu ñuy wax sagata geet boo déggee ñu wax sagata geet geet doo geet moom moo tax ñuy wax sagata geet mu def ko muy capitalam mu toog moo tax tund woo yëpp ñu tuddee ko tundu ngeet boo déggee ñu wax tundu ngeet géddoo geet moomu moo tax ñu wax tundu ngeet léegi nag moom mu bàyyi sant njaay bi dem sant jóg xam nga bon sant li leen wax ne yàggu te day wecceeku ba bengo ñaar ñu bokk benn bàyyi mujj gi kii sant njaay kii sant jóg kon sant moo yàggu boo demee ci mbàkke mbàkke yi balañ sant parce que seen maam mu ngi tudd maam Ousmane Ba Cheikh Galaya Fulbe moo mel ni maam Maram Mbacke mu jur Xaadimu Rasul kon sant day wecceeku yaa tey yaatuwul ñun nag li tax ñu sant toog Njaajaan Njaay sant Njaay Njaajaan du sax turam Muhammadu la tudd parce que bi mu ñëwee ba bi mu kàddaay ñëw ba borom la ko aar mu wëcc fa njaboot. thank you